sunu benn mbokk bu gaañu bu ñuy wax président Mitterrand def naa ci moom sax martiya waaw pour jaale ko Chirac yàlla xam na ko tabarkalla tagg naa ko ca lu ne wax naa ko waaye tubaab yi dañ ko tëralal benn léeb ne benn journaliste daf ko ni ko

lépp la waaye jaar na yoon waaw ba tax na kon nag ñoom itam dañuy taxaw beneen taxawaay ndax nit ki nag boo ko colonisé lu day noonu jamono dem ba àgg fii nag da ngay jël say responsabilité moo gën bu ko defee rekk ngeen gën a mën a jaxasoo bu ñu wàññee riba bi rek mu baax man jaar naa foofu yépp te yàlla xam ne ni wut alal taxu waaye jàng àdduna tax ndax nag dafa am lu ma mënul man mooy nit jàppe ma otage wax naa ko président Abdou wax naa ko keneen bu fee daan naa ko ko wax buñ ma waxee ma ni duma dugg ci industrie mukk ndax ku ci dugg rek di jaam waaw doomu commerçant la Babacar Sy commerçant la Maodo commerçant la Alaaji Abdu Kan commerçant la kon nag commerçant rek lay mën a nekk parce que ci commerce ci ngay gën a néewe nekk jaam moo tax boo duggee ci industrie rekk di jaam yi nga tiitaroo yépp doxul jaam nga rekk maa la ko wax waaw takk karawaat ak monsieur le président nga naan maay président société bi yépp dara du ci dëkk doo président dara dara dara bu ci ne ci jaar waaw jënd naa fi SEIB bu Jurbel moom laa fi jëkk jënd tubaab bi ma jëkk collaborel ci liggéey ci Sénégal bi ma ko gisaatee xàmmewuma ko te boobu nous étions de petits jeunes hommes ñu di ko wax Fernand Fibo mujj na nekk ambassadeur de France ñu indi ko Dakar mais bi nu nekkee xaleel dañu bare woon affaire Bobo luñu wax entente coopérative mo fi nek nek feulé ca wétu Croix-Rouge li dajak camion ma daan ko sama bopp 1959 la am sama permis camion ca Paris waaw sama permis voiture camion yépp Paris la ko passé Bobo Paris melul di nga xëy di dox ba jant sa doo gis nit ku ñul waaye booba ña fa doon samay xarit ay kilifa lañu te itam gëmi wuñ ma woon ndax baba Babacar Sy yàlla xam na ko fi ma jaar ak ñoom yépp li ma mujj def ci Sénégal mooy Sococim bi te su ko sim li ko sabab taalibee ko sabab bu ma yéene jàmm ku xam ne sama wóllëre la tudde na ma doom dajeeg man rekk ci hasard à Paris ni ma dama am xaritu allemand yu bëgg a def usine ciment est-ce que doon nangu pour collaborer ak ñoom ma ne ko entièrement d'accord mu indi leen booba président Abdou mi premier ministre la ma dem wax ko ko mu ne ma bu ko kenn yëg buñ ko yëgee mu yàqu président Senghor moo ma daan wax boole tubaab ak wolof ni ma Cheikh ma ni ko ah, mu ni ma les Sénégalais ma ni ko ah, mu ni ma ils sont añaande wallaay ils sont añande eh waaye man jàng laa cee wut ba ñu demee itam am naa fa jarbaat boo xam ne sama jarbaatu bopp la bien que allemand la man rek lay noyyee te wàllu jikko rek ñu boole mu ni ma mag ñi kenn du leen wax dara mais projet bi du dox ma ni ko lu tax mu ni ma diggante France lay doon ak Allemagne mu ni ma c'est politique te wax na dëgg xam-xam ba mu fa jële jar na lu nekk première réunion bi ñu doon def rekk Senghor def déclaration ci chantier Sicap xaw xawma ya ca des déclaration ba ba mu jexé trois minutes après sen ambassade bi ci Dakar yone une déclaration ba fa ñuy deferee réunion. pour wone ni du dox parce que france est opposé c'est normal famille Ababacar si ni ñu France ñeenti siècle di fi réaliser lo xamné ne jëlewuñ ko ci France xanaa jëlé ko ci Allemagne koku sen gatché la duñ ko nangu politiquement certes il n'y a rien de plus normal moo ñu sandi ma su ko dañ mako taalibee ngi yalwaan usine a ngoog mais bi ma seetee situation bi lan lay doye usine entre nous pour nous, ni ma monsieur le président président quoi hein? Mani merci président Yoné si Abdou Nous bu mu ko Je vous remercie. Je vous dañ ko je ne suis pas industriel je suis commerçant Ni la gisee ni la gisee ni la gisee Habib Diam ni ma di ko ne parce que je ne suis pas industriel je suis commerçant axtaaru tijara ala sinaa axtaaru tijara ala sinaa Allah Abdou dukan commerçant la Allah alaaji malik commerçant la won Babacar Sy commerçant la won bu Babacar Sy ba rek mo doxul parce que daf jarax yëfu seuri ta ma waxoon na ni ko sol mbubu seuri ak commerçant ce commerce yaq bo bëggee nekk commerçant pire mu ni ko da ngay summi mbubu seuri tek fele lol la ko do wax te respecté wuko te Maodo ko lebal capital mu dem jëndi ay diwam ak ay dugubam ak luye ay wagon euh, euh, lonk ko ci saxaar bi ñu daan tudde yi ajoor yi daan tuddee sikson sikson saxaaru sikson mooy saxaar yu bon yooyu nekk ci àll bi di def jëf jëf jëf jëf mu dem luye ci ay wagon indi marchandise ma Dakar fàtte la ko Maodo waxoon ñu ni doomu Maodo ñëw na rek ñëpp daw di ko ziyaare ci ah moom it mu jël marchandise ma jox ko mamanta te Maam Anta gën a tabe ci àdduna te Maodo mosu koo jox marchandise mukk lu mu dimbalee jullit yi rek la ko daan jox moom it mu jël marchandise ma la ko jullit yi ñu toog nag ba mu foog foog ni jaayal nañ ko ba yëpp pare mu ñëw ni soxna si affaire ba na mu def mu ni ko ak ah, ku ci war a am rek am na ci nee nag may ñëw di seet si Maodo maa ngi jaaxle ba ndax capital ba la jëkkoon moo ko def ne ma jënd ay yëf yu ma koy neexale mais fekk ci baatin xam na yëpp ne ma ñëw toog rek di nuyoo mu seweer lool mais ma génn yi ma ko jëndal indi jox ko saxaaul muflis بديع الزمان سخاء المفلس les largesses du débiteur am wax ni yow sa bi fay te ko dara parce que bu ma koy fayu si rek mu ma waaye ne Maodo yi moo ko indaaleel yépp rek maa ngi gis mu sewee rek bu mujj mu ni ma waaw saa meer ba naka la def mu ni ko ah, doxul de mu ni ma foogoon naa ko ne ma rus lool wallaay ndeysaan ne pour ma rus cëmti ko nag ma dellu si ni ko dama bëgg a bay pour cëmti ko kat mais ma ni tekk ba mu yàgg mu ni ma li ma ci gis day mooy sutur génn ci te doo ko jariñoo am mbay dafa am lu mu laaj ba laaj nga bàyyi ataaya bàyyi bi fi teg bàyyi ceebi jën yi ngay def ci biir kër gi yëpp kuy bay daf koy bàyyi neem ba ma demee seetlu affaire bi xam ni moo waxati dëkk nee ma dem ba mu yàgg ma xundu ñëw ni ko dama bëgg a tox mu ni ma foo jëm ma ni ko soo ko <laughs> nee ma ni ma dara nekku ci nee ni pat rek ne ma dem ba ca gannaaw ëllëg si ma ñëw ni ko toxu ba bàyyi naa ko mu ni ma dara nekk ci mu ni ma waaye mosuma gis mukk góor gu mel noonu nee tàng ji muy def commerce gëlee mam yi nit camion yi mel noonu la meloon ñépp xam ko ci bi muy jaay tokkoro yi la jigéen ñi takk ak itam di jaay saatu wat moom Maodo yooyu yëpp mu di ko jaay ba ñu dugal ko ci rikilees mu dem jënd ca kees yu dul jeex di ko jaay ca buntu jàkka ja am ku ñëw ni ko ah, góor gi waaw mu ni ko sa affaire war ko sedd mu ni ko ah mu ni ko ah teg cee tuuti seet ba ni